del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox ma yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar mbokk yi dal leen ak jàmm yéen ñiy bàyyi xel Feeling Dakar tax ñu yëkkati nag lépp loo xamante ni moo di ay information ginnaaw bu ñu ko vérifié mu nekk loo xamante ni rek dañ leen ko war a jox Benno Bokk Yaakaar xaw tuuti nag mu doon Benno Tas Yaakaar ndax xeex bi ñu fa nemmeeku ci seen siège boobu nekk ci diwaanu Mermoz ñaari parti yi nga xamante ni rek moo di parti Abdoulaye Diouf saar ak Amadou Ba ministre te ñu bokk nag seen APR seen i partisans yi daal ñoo ci doon laalante ay siège jugee fu nekk waaye tamit ci wàllu woowu nemmeeku nañ ci nag ay responsable yu mag a mag nekk ci coalition bii di Benno Bokk Yaakaar ñu ngay sax mal ne kuy saafonte derek dafa mal ne liñ ci jublu rek mooy daal di camoufler coow ga nga xamante ni am na fa waaye ca beneen boor ba ña nga fa gis nag la sénateur moom mi nga xamante ni moo di Californie ma ngay yëkkati nag ay kàddu yu ñagas daal di koy wax ñi nga xamante ni mooy partisan ci ñaari parti yooyu nga xamante ni mooy côté Abdoulaye Diouf Sarr ak côté Amadou Ba ma nga leen di dànkaasu tanaan leen